àggul ci procès Barthélémy Dias boobee nag jëm ci faatuk Ndiaga Diouf naam daan bu njëkk bi nag jot nañu koo fësal waaye nag jamono ji cour suprême nag moom la ñëpp yi déglu ngir xam nag dogal gi muy jël ci li nu mel yéene kaay bi ne mbir yaa ngi mel ne léeboo nag lippoon ndax Ndiaga Diouf bi mu faatoog léegi nag ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre ci lay am fukki at ñaar photo yëpp meeram Ndakaaru bi nag mi ngi menacé wu ci kaw bu amee condamnation loolee nag la yéene kaay bi xëy fësal Barthélémy Dias mu nar a jàkkaarloog sawara yéene kaay bi di bés bi le jour xëy di àddu jëmale nag ci diggante Ndiaga Diouf Barthélémy Dias ak cour suprême ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre ci lañuy xam nag ndax cour suprême dafay neenal boobee décision wala nag dafay dox di ñàkk lii di ay fonction mu di meram Ndakaaru ak député ci assemblée nationale yéenekaay bi ne Barthélémy Dias ci atum 2022 dafa xamle woon ne nag du bouger ci mairie bi du bouger ci assemblée nationale fitna gi nag boo moytuwulee dana jolli ci digganteem ak Macky Sall ginnaaw la ñu tënkoon ci dialogue ba ñu doon amal Sud Quotidien nag di defub taxaw seetlu ci Ousmane Sonko ak Barthélemy Dias yéenekaay bii ne jamono ji nag ñu ngi ci guddi gu bët setagul nag ndax lu jëm ci audience yi nga xam ne rek ñu ngi koy xaar ci cour suprême mu jëm ci faatuk Njaga Juuf ñaar fukki fan ak ñaar ci weru décembre ak li war a tukkee ci bokkaatub Ousmane Sonko ci biir list électorale yi loolee lépp nag yéenekaay bi xëy na dellu suwaat ci jamono joojee nag Macky Sall ma ngay jox ay dëggam nag ñii di OMC ci biir yëglekaay bi di Le Soleil nag ma nga leen di xamal ne dictat bi moom dañu koy jeexal tàkk nag bu ko defee nag ñu mën a soobu ci wàllu jënd meek njaay mi ci àdduna wërngal këpp ngir nag bañ cee bedd kenn mu fekk nag ci kaay bii di Le Quotidien Semga Mansour Seck nag di fa njukkal président Macky Sall ginnaaw dàmpaay yi nga xam ne rek jox na ko ñii di militaire invalide yi nga xam ne dañoo toll ci à la traité mu ne nag lu ni seen ay moral ba noppi nag dina gën a ñoŋal seenub nekkin yéenekaay bi di L'Observateur moom ci leneen xëy sëgg bokk na ci ay lux mbot ak i yoo xam ne rek dañu koy dégg mu di koppar yi ñuy luubal boobaak léegi te kenn xamul fu muy mujjee 94 milliards yi nga xam ne rek ñu ngi ciy tudd Mamour Diallo ak Ibou Soumaré ak yeneen i douze millions d'euros yu Marie Le Pen Abdoulaye Sow ak lu jëm ci tuuma yi nga xam ne rek tollu na ci cent millions ci suñuy xaalis ci ay terrain fer bu falame ak yeneen ak yeneen loole lépp nag ci la bi di l'observateur xëy defub taxaw seetlu Walf Quotidien moom daal di taxaw tey jii ci mbirum Aly Ngouille di ab candidat boo xam ne rek bëri na ci ay mbir yu ñu koy tudd bokk na ci mbirum Petrotim mbirum Jama Pologne ak yeneen ak yeneen loolee lépp nag nee ñu loxoom laale na ca moom candidat à la présidentielle bi lu jëm sax ci élection yooyee nag yéen yéenekaay bi ma ngay xam ne ni nag xam nañu ba noppi ñi bokk ci commission contrôle des parrainages les échos ma ngay xam ne nag ni ñaar fukki membre ak benn la waa conseil constitutionnel daal di tànn nag jox leen ay sañ-sañ ni leen doxal leen ñeneen ñuy doxal jamono ji nag bokk na ci fukki patriote ak juróom benn yi nga xam ne rek libéré nañu leen ci kaso yi ni ki démb Vox Populi nag moom di dikkaat ci tendance yu njëkk yi nga xam ne rek wàcc na ci élection représentativité yi soxal syndical yi CNTS nag moom gis na boppam bu baax ci Ndakaaru ci Mbàkke ak ca Ziguinchor CNTS FC nag ma ngay gën a am doole ca diwaanu Bawol ak bassin arachidier waa INSAS nag ñu ngi leen di gis fépp waa UDTS nag ñoom ñoo jël xaw gàddu gi ca bët gànnaar jàpp Podor naka noonu waa FGTS nag ñoom ca Fulaadu la ñu gën a gisee seen bopp CSA moom ca Vélingara Libération la ñuy àddu nag daal di wax ci faat gi ñu faatoon ab gérant station service ca Touba yéenekaay bi ne ñaari pompis nag jamono ji placé nañu leen ci garde à vue. Société nationale d'électricité bu Sénégal Ndiaye seen revue de presse